àlleen ma seen i nopp ma xibaar leen li si yéenekaay yi gannaaw Touba Kaolack itam mbënn mi sonal na leen ba tax la regard du ñu yëgal ni Cheikh Tidiane Dieye di jëriñ bi ñu dénk wàllu ko assainissement amal na fa tukki nemmeeku moom ak équipe ngir nag nemmeeku liggéeyu curage canaux yi nga xam ni moom la ñu fa doon def ak génnee ndox mi nga xam ni moo nekk ci yenn gox yu inondé yi ca Touba itam la républicain nee na plan Orsec bu Serigne Mountakha bi moo ngi dox bu piloté ci résidence Xaadimu Rasul ba nga xam ne mooy seen QG yéenekaay bi ne deux cent millions yi nga xam ni xalif bi joxe na ko ak si soixante million yu mairie bi joxe moo nekk ci kees gi jamono jii te juróomi commission taxawal nañu ko ngir séddale xaalis bi mu bokk ci administration finance technique communication ak sociale booba fekk na laas di ñu xamal ni reddition des comptes bi tàmbali na yéenekaay bi ne reddition des comptes wala traque des dignitaires de l'ancien régime ndax bu ñu sukkandikoo ci antenne quotidien Lat Diop mooy ki ñu njëkk a woolu moom waa dig woolu nañu ko tey bu 10 heures jotee yéenikaay bi ne loolee gannaaw bi nga xamee ni tere nañu ko mu génn réew mi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi ñu weesu turbine ne toppaate bi kay ci reddition des comptes bi tàmbali na euh, noonu rek la tàmbalee ak directeur ONAS ba woon di Lat Diop nga xam ni dig woolu na ko suux su aane lat kay moo ubbi mbir yi waaye nag yéenikaay baa ngi ñuy xamal ni homme d'affaires bii di Abdoulaye Sylla moom nag waa démb yéenekaay bi ne li ñu ko doon dégloo amaana mu soxal or bi nga xam ni jële woon na ko ci réew mi doon ko yóbbu Dubaay waaye bu ñu euh, ba ñu ko dégloo ba noppi dañu ko bàyyi mu ñibbi këram l'observateur ñëwal ñu ci li xew dëgg-dëgg ci boobu boobule audition yéenekaay bi ne jàkkaarloowam ak waa dikk def na fukki waxtu euh, te ci lingot door yi nga xam ni euh, moom la xayma ci ay milliards yu bare bari ci loolee la ñu doon waxtaan ba tey yéenekaay bi ñëw na ci avion bi nga xam ni ak euh, bi nga xam ni moom la ñu doon yóbbu or yi ba ci nag euh, la fa homme d'affaires bi wax lépp laataa nag ñu koy libérer sur convocation jongante tànneefu député yi nga xam ni moom la ñu war a amal di ko waajal réew mi quotidien moo moo ngi ñu ci xamal ni opposition bi fukki fan képp moo leen dese ngir nag ñu déposer liste candidat yi nga xam ni ñoo war a bokk ci yooyu législative Abdoul Mbaye ci yéenekaay bi ne moo ngi ñaaw lu magu yi nga xam ni moom la waa Pastef nekk di def l'info nee na fi mu toll nii kay opposition bi dañoo jog taxaw temm ndax tas bi ñu tas assemblée nationale te président Bassirou Diomaye Faye def ko daa mel ni piqûre boo xam ni daleen leen fàttali ne dañoo war a booloowaat ngir nag jàpp jàpp ngir dajale seen ay doole euh, teg ci Sud Quotidien ne état tàllal na loxo parti yépp yi nga xam ni euh, ñoom la mbir mi soxal ngir ñu waxtaan ci processus électoral bi euh, nga xam ni moo soxal législative anticipée yi ba tax yéenekaay bi ne tey jii sax ministre de l'intérieur dina daje ak représentant mouvement parti politique yeeg coalition yi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi njiitu réew mi 24 heures nee dina bokk ci 79e session bu assemblée générale des nations unies le grand panel quotidien ñëw ci Serigne Mbaye Thiam mi fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk wàllu ko njàng njàngale mi yéenekaay bi nee euh, dañu ko rek euh, daal di tabb envoyé envoyé de haut euh, niveau si lu soxal li nga xam ni moo di partenariat mondial pour l'éducation ñu wëyal ak lii quotidien deux vingt six yi Sénégal mu ngi koy waajal bu baax a baax ba tax na ministre de l'intérieur euh, sàkku ci kilifa yi yi euh, nga xam ni ñoom ñoo jiite gox yeeg goxaat yi euh, ñu amal ay déguerpissement ngir jële fi dëkkuwaay yi nga xam ni baaxul te it nag tegewul ci yoon l'informateur ne tolérance kay dootu ci am ci pagaay bi nga xam ni moo am ci mbedd mi ndax fépp la ñuy déguerpir teral 24 di ko dëggal ndax yéeni kaay bi nee na kilifa yu bees yi kay JOJ Dakar 2026 la ñuy waajal jamono ji ba yaakaar ci boppam la ñu bëggatul mu am benn dëkkuwaay bu tegewul ci yoon wala nag dëkkuwaay boo xam ni waru fee am ba tax Jean Baptiste Tine mi ñu dénk biir réew meek kaaraange askan wi ne ci opération zéro bidonville ci la ñu jëm enquête dossier la def ci tatouage ak piercing yi nga xam ni moom la ndaw ñi nekkee jamono ji yéenekaay bi ne tendance la ci milieu urbain bi muy nag ay pratique yoo xam ni léeg lekk ñu def ko ci zone yoo xam ni zone yu sensible la ba tax yéenekaay bi ñëwal ñu ci li ci diine wax ak professeur Boubacar di di ab dermatologue moom it li mu ci xamle mooy produit bi nga xam ni moom la ñuy defee tatouage mën naa indi cancer ñu jeexal ak réew mi quotidien sport mi ñuy xamal ni stade Demba Diop dinañu ko réceptionné ci weeru juin bi ñu jëm Sédhiou ak Kédougou tam léegi tey ñu jot seen wàll fi la ñu dar ci yéenekaay yi ma dew ba ëllëg ak jàmm ci Nassirou TV jërë ngeen jëf